Antoine Wardini maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay colonel euh, à la retraite waaye tamit nekkoon ancien commandant euh, bu zone militaire numéro un nekkoon i tamit ancien directeur au service civique national tey jile yamoo ko ñeenti fan ci weeru avril 2024 euh, di fête indépendance su Sénégal nan nga ñu mën a wax rek ci importance su bés bi la. indépendance bi bés bu am solo ci population sénégalaise mais surtout encore ci armée nationale parce que xam nga bu ñu waxee indépendance rek dañuy wax feet euh, feetu armée yi feetu armée yi ak xale yi donc loo xam loo xam ñëpp dañu ko war a célébrer parce que day marqué suñu euh, libération day marqué suñu indépendance day marqué ne ñun ñoo moom suñu bopp à partir de tey bi ñoo moom bopp Euh, nekkatuñ ci tutelle benn puissance comme ni meloon bu njëkk ci ci temps yi colonisation bi fi nekk ni libéré na ñu ñu ñoo war a doxal ci ñoo war a commandé ci dëkk ñoo war liggéey ci dëkk fi nekk ni bàyyi nañ ñoo ñu ñu alal donc affaire boo xam ne kontaan nañ ci lool parce que loolu la dëkk yëpp yu ut mun a moom seen bopp mun a liggéeyal seen bopp mun a am njëriñ seen bopp te wane seen mën-mën donc journée bi lu important la pour ñun lu neex la ci ñun ci sedd xol ci militaires yi parce que bés la boo xam feet la liggéey amul dañuy feete ak suñu njaboot feete ak suñu population suñu askan bi feete ak suñu xarit ñi nekk ci dëkk bi muy attaché militaires yi fi nekk muy ambassade yi fi nekk muy yeneen réew yi fi nekk dañuy feet ñoom ñëpp wane suñu kontaan te wane suñu bëgg ci bés bi mm. donc lu neex loo xam dañ koy célébrer ci Sénégal yëpp normalement lu Dakar rek Sénégal wante ren comme affaire yi noonu la demee dañu am gouvernement bu bees bi door a toog te dañoo génne ci ay tolof tolof yu métti temps yi at yëpp passé dëkk bi xawoon na wéer tuuti xawoon nañ jaxasoo xawoon nañ divisé xeex yi ak xool yu métti di ci gaaño moo tax ne ren bi moom ak nu mu munti demee célébration bi nu mu munti important important te kilifa dañ décidé daal dañ ko def benn célébration bu ndaw bu yem pour euh, fàttali ko ñi si ñi si gaañu fàttali ñu si perte seen bakkan fàttali si nit nit si aw usi parce que dañuy jéem a réconcilier dëkk bi dañuy jéem a boolewaat dëkk bi yëpp nekkat am doon dañu ñuy bàllante fàtte donc euh, du mënuñ ko def ay célébration bi tëgg di fecc di képp am na xam ton kon nañ koy def célébration bu yem mais fépp si Sénégal bi normalement département yi région yi ku si nekk war nga célébrer parce que cette indépendance mënuñ ko romb noonu rek bañ ko célébrer il faut ñu feete ko wane suñu kontaan et puis marqué bi parce que bés bi boo xam dañ ko war marqué àddina yëpp ñuy xool xam ne tey li suñu indépendance ñëpp dañuy yónnee ay message di jërëfal di ñuy di ñuy gërëm di ñuy félicité donc il faut ñu tam ñu ñu ñu mhm. mu yemoon nag ak contexte politique boo xamante ni euh, fin wu mandat wu euh, njiit gi euh, moo ko gën a marqué muy Macky Sall waaye tamit installation wu président gu bees gi di Bassirou Diomaye Diakhar fay ba tax na sax traditionnel défilé gi nga xamante ne daan na am tey jilee du mujj am waaye tamit levée des couleurs daal la ñu nar a def ca palais ba levée des googu li sax lan mooy sens rituel la benn rituel la benn tradition la si armée yi armée yi xam nga dafa am euh, affaire yi yu bëri yu ñuy wane seen bopp muy défilé muy prise d'armes muy passation de commandement wala levée de couleur ay ay ay rituel la yoo xam pour wane euh, suñu suñu soumission wala wane ne ne kilifa kilifa baa ngi fii armée yi ñu ngi jox ñu njëkkal kilifa bi armée yi ñu ngi wone ñu ngi wane seen seen subordination vis-à-vis de du président donc euh, lu am njëriñ la loo xam ne di marqué daal en tout cas euh, ni dëkk bi war a ni kuy kilifa ak ñiy exécutant yi ak ñiy subalterne yi ak ni muy doxee donc euh, affaire bi tey ci palais ba lañ koy defee tey normalement président bu bees bi moo koy jiite président bu bees bi Diomaye Diakhar Faye ñoo koy jiite tey normalement ak gouvernement ba tey comme que dégguñ gouvernement ba tey xaw ma xam naa ne équipe am moo am na équipe boo xam dana fa nekk wante tam du ñàkk itam kilifa armée yi kilifa gendarmerie yi kilifa corps constitué yi mooy ay assemblée ay way wala ay conseil constitutionnel corps constitutionnel xam naa ne ñoom de ñoom xam seen liste ñu xam dañ leen invité mais ba prix d'arme bi euh, dëgg tax li mu dugg la du prix d'arme comme ni ñu ko doon defee ci kanami gouvernement bi ak affaires étrangères nga xam ay tant am ay troupe yuy défilé di joxe ay décoration yooyu foog naa du doon boobu du doon tam défilé bu mag bi doon def ci place de l'indépendance mooy boori boori euh, avenue de Gaulle bi Charles de Gaulle vers vers la place de l'indépendance foog naa def vers fële naa mooy euh, place de la nation foog naa du doon bu mel noonu tam ak invité ay ambassadeurs ay président foog naa du doon loolu bi foog naa lu soobal boo xam ci biir palais bi lay doon ba xam naa président bi ak euh, ñi mu àndal gouvernement bi wala ñi liggéey moom ak kilifa kilifa institution yi xam naa dëgg-dëgg xam naa lu mu mën mën xam ne ñëw ñëw marqué leur présence euh, effectif bu réduit du doon lu mag te cérémonie boo xam bu taxaw la amul ay ay défilé ak affaire yu demee noonu donc euh, c'est une kii statique donc euh, ak dana am dana fanfare bi danañ fay nekk ak seen kii musique yi pour jouer dana am ay unité xam naa unité garde présidentielle bu wóor na ma danañ fa nekk bu wóor na ma ak xam naa comme na wax kilifa yenn yenn unité den joué hymne national bi et puis xam naa président tam am lu muy wax dana fa joxe benn message. Mhm. noonu daal lañ ko daan célébrer au niveau du si palais bi day mais tam dans les régions xam naa dans les départements gouverneurs yi préfet yi tam comme quoi armée bi ñu ngi fépp si Sénégal bi ñaan damay ñu ngi fépp xam naa tam ñoom tam dañ célébrer nank nañ parce que feetu armée la ak feetu xale yi mënuñ ko bañ a feetee il ñu marqué bés bi ne suñu a juboo ànd ñu ñëpp euh, renforcer cohésion bi mooy tax euh, affaire bi il faut ñu célébrer ko moom. mais lu jëm ci levée des couleurs justement nan lañ ko nar a doxalee. levée des couleurs bi comme ni la ko waxee léegi rek xam naa xam naa xam naa levée des couleurs day am benn mat des couleurs benn mat mooy benn poto boo xam si li ñuy yëgal drapeau bi drapeau bi dañu koy yëgal mooy euh, unité fanfare bi wala musique bi ñoom ñooy jouer ak ñooy jouer ñooy sonnerie bi buñ sonné sonnerie bi drapeau bi day yéeg loolu pour ñu def ko tam day fekk moo ay unité ñu ngi taxaw sur place comme na Fatick duñ dox ñu ngi seen fetal mooy mooy piquet d'honneur bi wala piquet d'honneur bi wala garde au drapeau bi ak yenn unité donc am quelques unités lu mu bon bon parce que tam ñoom ñooy marqué présidence yi force de défense yi itam mais en plus de ça président bi ak gouvernement am wala ak unité bi ñooy taxaw day benn formation la boo xam day mel ni en un huit devant si benn poteau poteau bu kawe buy jógee mooy mat de couleur dañuy former wu autour du poteau en U comme ça tiim drapeau bi ndax bu ñu koy yëgal ñëpp mën a gis drapeau bi bu gra bu sonnerie bi bu fanfare bi sonné pour drapeau bi yëg ñu muy yëgee ñu di saluer drapeau bi ba ba fu muy drapeau bi yëg ba fu muy taxawee ñu takk ko bu fekkee ni jeu national tam ñu joué ko président baa nga fa tam voilà noonu lay demee bon kilifa yaa ngi fa xam naa peut être dana nuyu kilifa yi xam naa dana wax ak kilifa yi après avant ñu départ mais de normalement défilé mënul fa am parce que suñu présidence bi la mën nañ nag def benn passage bu ndaw wante défilé moom il ñu def ko ci lieu public comme devant ci asa devant euh, ministère des affaires étrangères wala place de nation fu ñu doon defee mais noonu lay demee daal affaire bu soxla lay doon mhm. maintenant si région yi nag ñoom est-ce que def benn défilé bu ndaw wala duñ ko def mun nañ ko def ça dépend collectivité bi ak autorité militaire yi nekk place. Mhm. alors lan nga jàpp yi tamit ci discours à la nation wu euh, njiit gi euh, le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar démb euh, ñu doon waajal feetu indépendance. ah discours bi ma dégg moom vraiment day dal na xel bu baax la bind bind bi rafet na li nekk si biir continuité am na njëriñ te neex naa dégg te yàlla na yàlla na yàgg. ni ko président bi wax tam wax bi tam vraiment wax na ko ci tel ci xel bu dal ah rassuré nañ ñëpp vraiment discours bi moom am ma dara lu tel lu gàcc ngaala moom vraiment discours bu baax a baax la kon dafa mën naa si lool te ñu ngi ñaan maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ñu discours bi liñ ci wax yëpp ak li ci nekkee bi yàlla na am ndax mu nekk njëriñu Sénégal bi yéen ñëpp. vraiment difficile moom macha allah. Mhm. alors Guèye colonel à la retraite nag euh, jamono ji tey ñuy euh, féete li nga xamante ne mooy indépendance indépendance au Sénégal euh, ban yëg-yëg nga am fi mu toll nii. ah bëgte bëgte xam nga bu ñu indépendance rek moom day am toujours connotation militaire indépendance day mel ni mooy léegi yéen a moom seen bopp libéré nañ leen demal leen seen bopp liggéey leen seen bopp wane leen seen mën-mën. loolu nag kontante la parce que bu fekkee dañoo nekkoon ci colonisation nekkoon ci ci euh, autorité beneen beneen puissance boo xam du suñu dëkk ñu dem ba waa ji dañuy dégg jëlee jàmm wala jëlee ko ci xam ne yéen moom seen bopp léegi loolu rek la ñu ut ku rek da ut moom sa bopp mën a liggéeyal sa bopp mën a amul njëriñ sa bopp te loolu kontaan la bu ñu nee ba yegg si ñun militaire ñun en tout cas nga xam ne ñoo yore kaaraange dëkk bi bu ñu nee ba yegg si mooy gàcce ngelaw ma ci suñu mission en tout am nañ lu dëkk bi ut am nañ yegg nañ ko dëkk bi di ñu leen fa ñun jàmbaar yi ñun yore kaaraange yi kontaan nañ ci lool moo tax mel ne la bés bu mel ne ñun dañ ci sant yàlla parce que feet la pour ñun feet la pour suñu njaboot bi feet la pour suñu askan bi vraiment ñu ngi sant yàlla ñaan yàlla na jëm kanam waaye lan moo war a nekk nag taxawaayu armée bi euh, jamono ji euh, nan la ñu war a procéder ah taxawaayu armée bi moom du mu rek mooy taxawaay républicain la taxawaay boo xam nous sam aux ordres ñu ngi fi nekk pour liggéeyal nguur bi liggéeyal dëkk bi liggéeyal institution yi def suñu liggéey suñu mën a mën ba affaire yëpp dal dal ci xel yëpp aw ci yoon bu ñu kenn tumurankeel bu fi benn sama booy jógee bitim réew ñëw yàq suñu dëkk bi dañu war a protéger suñu frontières yi protéger personne nit yi fi dëkk suñu askan bi protéger ba ñoom ñu mën a dem di ñëw di liggéey seen liggéey nekk ci jàmm ñun ñooy nekk ci ci yoo àll nekk ci frontières yi di xool di sam di sàmm suñu kaaraange sàmm kaaraange dëkk bi pour que dëkk bi ni di mën a liggéey tranquillement mun a dox seen dox tranquillement mun a dund tranquillement bu loolu benn kii mooy mooy défense bi mais côté économique am na loo xam ne ci jàppale jàppale gars yi parce que tam ñun fu ñu nekk ci territoire national bi am ñu fa ay unité am nañ fa ay militaire donc lu mu bon bon danañ jënd ay affaire pour dundal leen danañ jënde ay tenue danañ leen jéem a dimbali itam sur le plan économique jéem a dimbali ci tool yi bu fekkee soxla dañu ñu jàppale leen danañ jàppale <clears throat> bu fekkee tam soxla nañ suñu avion aéroplane yi pour yóbbu ay marchandise wala yóbbu ay affaire dañu ci dimbali bateau yi tam même chose et cetera sur le plan économique am na yoo xam ne ñu si liggéey mais également tam sur le plan social tam dañ dimbali nit bu amee euh, Euh, mën na fii wala mu am accident wala mu am loo xam métti na lool dañ déployer force armée dem jàpp dem jëm ko liggéey xam nga bi fi Covid bi amee wala bu amee ay yenn feebar yu métti dem ñun suñu médecin yi boo amee ay indépendance tam ñun ñooy boo amee ay ay élection ñu ñooy déployer suñu unité tam pour jéem sàmm kaaraange bi jéem a sàmm nit ñi pour nit def seen liggéey correctement donc ñun armée am nañ rôle défense mais tam am nañ benn liggéey boo xam sur le plan économique dañ ko def ak le plan social mais également même sur le plan diplomatique am na loo dañ siy liggéeyal dëkk bi mooy euh, bu bu Sénégal accord yi signé ak communauté internationale bi fu ñu soxlaa unité sénégalaise troupe sénégalaise ñu dimbalee dëkk yi nga xam dañoo nekk yi tolof tolof dañu di yóbbu kooku dem di yëkkati suñu drapeau yaay xam ne Sénégal lañ fi kooku Sénégal rek la ci liggéey mais dañuy liggéey tam communauté internationale parce que dañoo Sénégal def ñaari accord yoo xam ñun militaires yi il ñu appliquer ko sur le terrain muy Liban muy euh, Kowe muy Congo muy Afrique fépp fu ñu soxlaa pour ñu dem jàppale ñu pour jàmm del ci fa Sénégal dafa yóbbu militaire yi donc loolu tam mooy le rôle diplomatique boo xam ne dañu koy liggéey donc am na rôle économique rôle diplomatique social et rôle euh, défense militaire. alors ñu seetlu yi tamit esprit d'engagement citoyen bu ndaw ñi amee euh, jamono ji surtout. moom kay engagement engagement xale yi moom dañ ko rafetlu moom man dama ko mos a rafetlu man en tout cas man colonel Antoine Wardini xam naa ne xale yi ñoom vraiment ku leen jàppale ñu liggéey liggéey liggéey sa bopp liggéey vraiment allah man nekkoon nekkoon naa fi militaire effectivement pendant quarante huit ans trente huit ans plus tard di commandé militaire yi ay xale lañ si ñu doom lañ si ñu morom lañ si ñu rakk lañ nekkoon naa fi tam service civique national ñu rakkale itam mooy volontaire yi ñu yëpp si Sénégal fépp dimbalee askan bi dimbali population yi ci rafetal raxas dëkk bi defar dëkk bi bu fekkee am na tam loo xam mën nañ ko def si mbéy bi tamit def bi lépp bi xale yi daal arbe moom vraiment sur ce plan là moom am amul ma jëm la sant yàlla gàcc yàlla ma mhm. donc euh, mhm. euh, engagement xale yi man wéet yu moo ko xam naa ne xale yi ku leen encadré ñu dem xale yi bugg nañ liggéey bugg nañ wane seen mën-mën bugg nañ ñu jàppale leen tam ndax ñu liggéey ndax tekkil tekkil seen bopp tekkil seen njaboot tekkil dëkk bi Mm-hmm. Eh, xale yi nag ku leen encadré comme ni ma ko wax démb rek ku leen encadré rek ñu aw ci yoon bu normal bi loolu rek la ñuy loolu leen soxla. Mm-hmm. bu leen encadré wul itam bu ñeen dimbalewul itam li ñu li xew rek nekk ci benn bi def n'importe quoi te loolu du du lu baax mais xale yi ma gis keroog bi ñooy jomay jomay eh, gañale élection yi. ñu génnee ci Sénégal di raxas dëkk di bale di nettoyer yore seen bale yi di symboliser di di jomay dog mooy eh, kii yam bi kii yam bi campagne am bi xale yi xale yi boo leen gisee fii Sénégal gagné coupe d'Afrique ñun ñuy ànd ak équipe yi di ànd bu wane ñoo ko mu am coow du am wax du am xuloo ñëppay ànd di kontaan kon daal xale yi vraiment comme ni ko président bu bees bi waxee bu ñu leen encadré dañu def effort ci ñoom foog naa dana am njëriñ pour Sénégal lu baax a baax a baax loolu daal vraiment sport te am ñu ay lu bari lu ñuy mën a defal encadré leen former leen ut jéem leen utal fu ñuy dugg vraiment moo gën ñu xale yi ñuy dugg ci. gaal yi dem ay bar sa bar sax di dee di xulu di sàggante dañu war a def en sorte que xale yëpp kontaan ci seen dëkk kontaan ci nekk Sénégal kontaan ci liñ leen di mën a defal pour ñoom tam ñu am njëriñ dëkk bi il faut ñu encadrer leen Mhm. en tout cas Antoine euh, Wardini euh, jërëjëf may fàttali rek ne colonel nga à la retraite nekkoon tamit ancien commandant de la zone militaire numéro un waaye nekkoon euh, tamit ancien directeur bu service civique national ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf et bonne fête de l'indépendance à tous. merci beaucoup merci beaucoup.